chers internet yu enquête 221 dal jàmm dal jàmm ci li gën a fës yi ñu commencé kook enquête yéenekaay bi dellusiwaat ci manifestation yi ni doon laam-laamee ndax jeunesse bi am nañu engagement ci Yewwi bi ajuma ji ñu génn population bii wanewaat nañu seen bopp mën a la Ndakaaru njaay gi yëpp daf doon saxaar tàng jër yéenekaay bi dellusiwaat ci manifestation bi te ñuy xamal ne dañ ko interdire waaye bu ñuy xool 2022 rek lu toll ko fukki ndaw ak juróom benn ñàkk nañ seen bakkan te dara warulu ko lu dul ay njuuj njaaj yoo xamante ni dañ koy seetlu ci justice bi yéenekaay bi ne gis nga xale yi di dee ci mbedd mi comme ay weñ bu ñuy joxoñ duñu jéggi policier yi nga xamante ni ñoom ñoo leen di boom waaye sa wet boo xool boo xool dafa mel ne ndaw ñii tamit seen yaram dafay xasan suddu ko tijjeene jamono ji may wax ak yéen koy jàpp leen ne Mame Diarra mu nga le maire Ahmed Aïdara jamono ji ñuy wax ak yéen ñoo ngi ca biir kaso ba yéenekaay bi des ci arrestation bi tey laajte lan lu ci mënti xew manifestation yii moom jeexagul ndax leader yi Yewwi Askan bi jamono ji ngi nas ay manifestation ci semaine yi ñu jëm léegi fa yéen moom def taxaw seetlu ci mémoire bi nga xamante ni Abdoulaye Bathily def na ko ci ëttu politique gii moom Abdoulaye Bathily xam ne ci biir yéen kaay bi ne gis nga ndaw ñi boo gisee seen engagement ci ëttu politique gi rawatina seen réew mi jaral leen seen bakkan c'est parce que tout simplement dañoo bëgg c'est parce que préfet yi wala gouverneur yi dañoo interdire ay manifestation Abdoulaye Bathily ñaawlu lool ji salte yi nga xamante ni ñu koy gis ci yenn homme politique yi ñenn ñi dem ba ñàkk seen ngor moom Abdoulaye Bathily ni man de dama gëmul benn yoon sax am ministre boo xam ne mën nga nekk milliardaire Bathily yemul ci loolu ndaxte mu ngi xam ne ne gis nga suñu réew mii booy xool ba xool ndaw ñi dañoo bëgg liberté lii dong moo tax seen réew jaral leen

mbir yi di gën a compliqué ki tey ji lañ leen war a déféré ca parquet yéen bi du ñu ne dara warul seen arrestation yi lu dul di leen toppee manifestation boo xamante ni autorisé wuñu ko seen avocat yi mer ba futt ci biir bi ne duñu bi yéen kaay ci diwaanu Ziguinchor rek lu tolloog fanweeri jeune ak ñeent jàpp nañ leen jamono ji ñoo ngi ca biir kaso ba mars ba jamono ji yéen bi ne lim bi toll na ci fukk juróom entre a jàkkaarloog a gaawee lu ko may rek réew mi am ci leaderu Yewwi bi yi nga xamante ni dañ doon wax ne dañuy manifester te ñoom ñëpp seen biir kër yi lañ mujjee yéenekaay bi tuddee leen ay poltron ne xoolal Ousmane Sonko rek seen yuuxu gu métti geeg xataraayu gi yëpp génnuñ seen kër mbir mën la ba jamono ji may wax ak yéen demuñ ca manifestation ba yéenekaay bi ñu xamal ne leader yi Yewwi ak Wàllu Sénégal ñi ci jàpp weesuwul Déthié Fall Mame Diarra Fam Ahmed Aïdara ak Guy Marius Sagna Khalifa Sall ak Habib Sy moom dañ doon rappi rappi di tëbëk a dal waaye ñoom ñëpp ndekete xataraayu rek lañ fi nekkee woon yéenekaay bi mel ni jéppi waaye Yewwi Askan mi ta leen di xamal ni fexe ngeen ba ñetti nit daal di ñàkk seen bakkan ñetti nit ñu jàpp ko ci yéen léegi nag ñu xool lan moo tax ñu ko daal di viser Déthié Fall Touré muy yàq lu mel ni xeme waaye weskat mi te leen di xamal nii ñoom ñoo bëggoon taal réew mi waaye dafa mel ne ñoom ñoo mujjee tàkk Mimi ci biir yéenekaay bi di xam ne ne lu mel ni xeme mën a xalaatee jël doomam yóbbu ko ca école ba jël doomi jàmbar indi leen ci mbedd mi lii Ousmane Sonko def nag mooy wane ne respecté wul jeunesse bi critique yéenekaay def taxaw seetlu ci manifestation bi nga xamante ne amoon na ci àjjuma ñu génn yéenekaay ne la leader yi seen xataraayi gu métti gi yépp dañ leen mujjoon a téye seen biir kër yi bokk na ci Ousmane Sonko Barthélémy Dias kenn génn ki sa biir kër yi ne gis nga ci xeex boo xam ne lañ nar a jëm Macky ci boppam dana ko bëgg a mu tëkko l'observateur di ko dëggal na gis nga li xew ci àjjuma ji Macky Sall xalaatu ko woon mën na la kenn mësul xalaat na dëkk bii jeunesse bi danañ génnaat naan dañ koy taal yéenekaay bi desuwaat ci ci manifestation moo bari en tout cas moo di Serigne Moustapha Sy moom mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne li ñëw moo gën a tar ndax gis nga Macky mi xamul yee laata il faut que ñu jàkkaarloog moom ubbi ci xët bu yaat na Serigne Moustapha Sy kay ci sargal bi nga xamante ni lañ ko doon defal ca Tivaouane ci la profito yàkk lu mel ni xeme nguurug Macky Sall mii Serigne Moustapha Sy njiitu parti di xam ci biir yéenekaay bi ne Macky ci boppam damaa xam ki nekk ci ginnaawam te du kenn ku dul Abdou Diouf moo koy jëfloo jëf ju bon ji nga xamante ni mu ngi koy def ci biir réew mi njiitu parti yemul ci loolu ndaxte mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi a taxaw ndax dañ koy fekk si ci gii ñu ngi cëppi-cëppi di lappi-lappi et pourtant man Serigne Moustapha Sy jugaguma ak sama njaboot Serigne Moustapha Sy di yaakaar ne boo ngeen ànd ak seen dal jarul ngeen di cëppi-cëppi samay njaboot ñoo nag du xeex kon nag am ngeen bi ma xatee waaye na leen wóor mu toll nii na xeexu terrain moo ci des Serigne Moustapha Sy njiitu mu yor te di xamal ne da ngeen am njaboot ki suñu biir ci combat bi danañ jàkkaarloog Macky Sall bii ci góobe gar ko dèjà lu jëm ci élection législative yii moom Serigne Moustapha Sy ni la xew ca France rek mooy xew ci Sénégal gii nañu xaar ba Macron mucc ci élection ne Macron de mujjee naa perte France ndax dañ koo mujjee làpp-làpp yi métti ca parlement ba Serigne Moustapha Sy yemul ci loolu ndax te dellusiwaat na ci lan moo tax président Macky Sall ci boppam xolam bii munta sedd boo ko fekk muy fuñ fuñu ak pexeel ñi nga xamante ni ñoo nekk ci opposition bi moom njiitu parti pur du xam ne ci biir yéenekaay bi ne li ma gis ci àjjuma ji ay comédie kese la lan mooy ndeyu ñuy tere Ousmane Sonko mu dem julli ji et pourtant moom Ousmane Sonko bi muy moo jara laajte Serigne Moustapha Sy yemul ci loolu ndax mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne gis nga am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi waaye ñaari possibilité dong la am soit suñu borom jëlee leen fa nu nekk wala boog ñu mujjee ci ca biir prison ba capitaine njabootu Serigne Moustapha Sy di xam ne ci biir yéenekaay bi ne ñun daal Serigne bi benn ndigal dong la ñuy xaar mën na la jox ñu ndigal rekk ñu jëflanteeg ñoom su boobaa dina am ñoo xamante ni nii wal lañ leen di mujjee wal ba ñu mokk rumbax <laughs> ku xamul xamul nañu seetaan rek ñu yendoog jàmm ba subaak jàmm incha allah